asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu mbooleem chef de village yi nga xam ne ñoo composé commune Nguidi la euh, di nuyu mag yi commune bi góor jigéen mag ak ndaw euh, dañ doon sant rek di gërëm nit ñi ci jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko ci processus électoral bi nga xam ne moom lañ génn ak élection yi coono yi bari nañuy masaw ñëpp coono. di jéggulu wax dëgg yàlla ci coono yi ngeen teg koor gi di baalu àq ndax wax dëgg yàlla euh, moment bi ñu doon génn di ñëw ci nit ñi euh, xawoon na jafe ndax dana tàng dana def lépp nit ñi di ñëw di ñu xaar ñu ñëw waxtaan ak ñoom ñu déglu ñu wax dëgg yàlla yooyu yëpp ay coono la ñu ñu leen ci masawu ndax metti na wax dëgg yàlla léegi nag yi nga xam ne moo ci am mooy yàlla lu mu dogal nit da koy nangu li am am na sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ci seen taxawaay li leen waroon kenn ku nekk li la waroon def nga ko doonte lii am am na waaye kenn ku nekk la la waroon def nga ko ñun nag ñii lañ ko bëggee ndax senegal li ci ëpp solo mooy benn bopp la kenn mënu koo xar ku gañee rek ñu xam ne yow yaa gañee ñu jaajëfal la wax naa ko ci samay interview avant lii li ëpp solo mooy tey xam nañu Sénégal rek moo gañee kenn gañewul ndax euh, sama candidat du sama candidat benn la ndax léegi benn candidat lañu am mooy le président de la président bi nag c'est le président de tout le kon dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko ñaanal moom Bassirou Diomaye Faye moom it yàlla defal ko jàmm xéwal li mu yanu am lu ko téeñ ba nga xam ne du du diis ci kawam ko ñaanal mu am réussite ndax loolu rek mooy mooy jàmm ñun ñëpp mooy jàmmi Sénégal ndax bu réussir Sénégal réussir bu réussir Sénégal du réussir kon dañ koy ñaanal mu réussir yàlla ci yàlla def jàmm yàlla def ci xéewal li nga xam ni nag yu ci mel yi ciy am nag yenn yi nga xam ne amoon na ci biir campagne beeg yépp it ñuy wax kenn ku ci nekk nii ku ci gis sa bopp ñu ngi lay jégalu ci loolu ndax amu ci lenn loo xam ne dañ ko def pour tayeef wala ñu def dara pour euh, naqaral kenn xëy na am na yu ci am yoo xam ne nii benn bu ci nekk mën nañ ko mën nañ koo expliquer mais jëruñu ci guddal li ëpp solo daal mooy kenn ku nekk xam ni ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li am ci campagne bi lu mu mën a doon it ñu war a xam ni waxi campagne la ci campagne la yam bañ ko waxee lañ ci pare ñun amuñu benn animosité par rapport ak kenn li ñu gëm mooy Ngidila la ñu xam moom lañu am amuñu leneen maay maire Ngidila je suis le maire de tout le monde comme ni ma ko waxee léegi rek le président de la République c'est le président de tout le monde maire Ngidila tam man maay maire waa Ngidila gépp kon man lu mën a xew ak lu mën a amit damay gëm ni euh, wax yi yoo xam ne wax ci élection la woon rek ñu nekkoon ci ci ay coowal campagne jeex na falaa ca yem pare naa ci mais amu ci lenn loo xam ne ndax kenn ku ci nekk war naa laa servir doonte benn doomu tàndarma wala doomu guura sa war naa ko def ci yow te loolu lay continuer def ñi ma jàppale damay continuer di leen jàppale ñi amagul maa ngi seeti pexe nu ma def ba am dara ñi nga xam ne commencé naa ci ñoom yi damay continuer defaral leen continuer amul kenn koo xam ni dana ci am xaj ak seen kenn ku ma ci mën a dimbali danaa la dimbali day continuer ñuy doxal li ñu war a doxal li ñu war a def lépp ñu def ko maanaam ñi ngi ci lampadaire tey jii commencé nañ samp lampadaire yi tey jii ku jaar ci yoonu ngi di lay bu guddee da nga gis mu leer nañ loolu commencé nañ ko li nga xam ni moo doon li miiru école yi doon def it nañ koy continuer bu dee li nga xam mooy wàllu ndox mi ñi ngi koy ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi continuer moom liggéey boobu extension bi nga xam ni moom nañ commencé woon ci courant bi poté yaa ngi ci buntu maire bi commencé nañ ko moom yooyu yëpp ñi ngi commencé def ñu daal xooluñu ci ay politique ak du politique li am solo daal mooy ñu xam ne ñooy maire Gidi la ñoo yore ñëpp ñoo yilif lu ñu man ci jàppale leen ci ñu réussir danañ ko def loolu moom mooy mooy suñu mooy suñu yitte mooy suñu xalaat. ni tamit euh, politique bi dafa am fu mu war a yem fa mu war a yem nag bu fa yemee dañoo war a jël li nga xam ni mooy liggéey toftal ko ci mooy li ñuy def mooy war a dem xëy liggéey la ma waxoon bu ñu wotee dimanche bu lëndee nañu xëy dem liggéey kenn ku nekk li nga war a def defi ko kay dem ca marché ba dem fa kay dem ca dem fa keneen kuy dem feneen dem fa ñun ci loolu rek lañuy nekk te it xam nañu ni population bi ci loolu lañuy ñuy xaar ndax euh, ni ñuy wax euh, priorité yi bari na kenn ku ci nekk it am nga ay bëgg-bëgg ay soxla yoo xam ne ni boo sañoon ñu defal ko daar daar ci loolu rek lañuy nekk continuer ci ndax àdduna li may wax amul solo te suñu ngidi la gi rek lañ am buñ buñ sañoon yëkkati ko ba mu nekk ca kaw a kaw a kaw fu waay tool di ko seen luñ ci man dañ koy def pour xeex ngir mu nekk bokk ci communes yi nga xam ni mooy communes yi émergées ndax bëgguñu mukk ñu fekk ñu ñëw euh, jël commune bi bàyyi ko ci situation yoo xam ne ni duñu ñu xam yu yan genre situation la kon li ñu bëgg rek mooy ñu jàppalante lente ñëpp la dans la main pour que ñu arrivé ndoo ensemble ci euh, stade boo xam ni vraiment kenn ku ci nekk dana gis boppam ci commune ndax commune bi ñun ñëpp ñoo ko bokk man damaa jiite waaye bi ma jiitee it il faut ñëpp jàpp ci pour ñu mën a pour ñu mën a réussir lépp li may wax rek lu mën a xew nañu xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu góorgóorlu ndax loolu mooy solo si nga xam ni moom rek moo ñu mën a dimbali pour ñu réussir ci yëpp yi nga xam ni ñoo ñu jàppale muy ni ma ko waxoon léegi rek ñi nga xam ñoom lañu àndaloon ci ci ci ci ci processus électoral jël muy jëleeru Makabra Gueye Kër Mbaari si Cissé ngi di lee ku mën a doon rek ndax def nañ 63 villages ak amul yi fi nekk yëpp mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay Euh, quelque que soit nu mën a demee rek kenn ku ci nekk daal ñu ngi lay sant ndax xam nañ ni kenn ku ci nekk ci ñoom ñooñ suñuy mbokk lañ suñuy xarit lañ suñuy frère fa dëkk ak suñuy yaay ak suñuy papa suñuy nijaay suñuy jarbaat ak suñuy soxna kon amuñ ci kenn ñu ciy mere ci dara li am solo rek mooy ñoo xam ne rek comme ni ma ko waxoon léegi ñoo bokk dëkk bi yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéewal defal ñu sutura mais nag di sant particulièrement sama dëkk Kër ndax lu mën nekk nañ ci wax dëgg yàlla tey jii metti woon na mais ñoom dañoo def li ñu war a def def l'essentiel ku mel ne ñeem Cissé dama leen di sant ñoom it wax dëgg yàlla dañoo génn ñoom it ak victoire ak fu mel ne ñaxal pël donc ñooñu dama leen di sant di leen gërëm bare leen cant ndax dañoo def dañoo def lu rëy moo tax il faut ma sant leen ndax jàppale nañu wax dëgg yàlla ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal bañ amaat yeneen échéance sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum